asalaamaaleykum mbokk internet ñi seetaan ci inforim point com maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay euh, comme niñ koy defee nag su ne Cheikh euh, boo gisee fi ma taxawee nag nga xam ni maa ngi fi nga xamante ni mooy mbëbës mbëbës nag tey dama fee ngir waxtaan ak responsable yi nga xamante ni ñoo nekk ci mbëbës ndax euh, fan yi nga xamante ni ci la ñu nekk ni yaa ngi dégg coow yi nga xamante ni dañ koy dégg ci mbëbës agression yi problème mu saxaar si lu nekk ñu di ko wax waaye nag fi ma taxawee gis nga mbalit yi ni nga xamante ni noonu la fi bëree ah ndax ndaxte lu nekk rek mu ngi fi yaa ngi gis plastique yi yaa ngi gis li nga xamante ni mooy mbuus yi yaa ngi gis lépp looloo waral nag tey ma ñëw taxaw war a waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo fi nekkee ndax euh, mbëbës nag euh, boo ko gisee da ngay xam ne nag euh, sanc la sanc bi nag du ma ne dañ ko fee fekk du ma ne da leen fay fekk ndax 1968 la fi nekkoon ba léegi 1968 ba 2019 loolu du lu ndaw dinaa waxtaan nag ak responsable yi ñoom nag ñu daal di ñuy wax lan lañ xalaat ci problème bu agression yi ak mbalit yi bu ñu paree fan lañ ak naka la ñuy dundee ak problème yi nga xamante ni moom la ñuy jànkoonteel euh, fi nga xamante ni mooy rëbës ay ca Cheikh Diop topp ma ma daal di dem nag laaj ki nga xamante ne ni mooy responsable bi nekk fii ci ma bës mu daal di ñuy wax xalaatam ak lan mooy euh, li nga xamante ni mooy solution yi ay ca nañu dem maaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay fay maa ngi sant bu wér. ñu fekk la fii nga xamante ne ni mooy mbëbës nga nekk njiit nga nekk fi di daan sa doole tey est-ce que mën naa xam mbëbës depuis kañ lañ ko sañ. waaw de mbëbës de xam naa ne bu fekkee sanc la réellement 68 la mais officiellement mi ngi dox 70 parce que bi ñu ko santee 68 bari na oto yoo xam ne xamuñu fu mu nekk. dañuy jaar ci darkase yi rek tuur ko fa biñ demee ba xam na nag dëgg-dëgg war nañ leen yoon bi defal leen ay table signalisation loolu yëpp la tout réuni ak toxal bi ñu toxaloon yaraax jëmee ko fii mu daw ba nekk deux ans yi muy soixante dix donc officiellement soixante huit lañ ko ubbi soixante dix la fonctionné pour tout le monde voilà. Euh, mbalit mu ñu am fii lañ koy sotti ci fii si Mbëbës est mën naa xam bis bu yàlla sàkk ñaata mbalit ñoo fi sotti waaw loolu la doon wax sank. bon fi bu dee période hivernage la on a 2500 voire 2600 tonnes par jour euh, li tax ma war la ko mën wax mom la doon wax ci ki sank. yooyu ICG moo wara wax moy ñom ñukay koy mais téwul ñun xam nañ ko lol taxone sank ma naan ko bu ngeen di ñëw ci ñun da ngeen war am ñaari autorisation yëpp bu UCG ak bu récupérateur yi donc bu dee hivernage nañ am 2500 2600 tonnes par jour bu hivernage bu jàllee mal mi doy oyof actuellement mën nañ am de 2000 2200 voire 2400 tonnes par jour voilà dañuy gis amna ay jigen yo xamante ño fi nek ak ay gor ku fi dugg ci naka nga fi wa comme yeen ni ngeen def ba dugg fi rek en ah, parce que yeen après ñun ñoo leen abordé ñun ay récupérateur ñoo leen wax ne dem leen gis njiit ji pour mëna wax ñom té dugg ngeen fi ci jamm ñu bari nak dañ ñu marginaliser naan bo fa duggee nangam dañ lay def ni dañ lay agressé ñu dëgg comme ni nga gis fi rek ay récupérateur ay kat doole ay buñu man yu daan sen doole ngeen fi gis nag maa ngi lay wax dama bëgg dégg mo buñu man parce que man dañ ko marginaliser mu melne bandi la wala ku yag dem kaso té te alors que man au sens propre du mot da nga daan dégg bi ñu nekkee ñu wax nuru buuj moy ki nga xam ne mënu nekk au fond fond do am mbalit yenn saa day salte mën nga ubbi mbal fekk ci lire ci bir ci benn mbuss mais bo ci fekkee lire bu buñu man vrai nga da lay jaral nga xol lire bi ndax am sax fi jaaro oram wala cienu oram kon wala le mot man mu ngi sogu ñew ki dul buñu man nak bu be mbuss gi ci lire day yuxu way xam nga daw kon koku ñun ñu considérer comme bujuman, li lañ leex buujumaan kon buujumaan nekul wàgg moo nekul dara mais borom bop la bu wuté ci bir mbalit di jeex di wut pour lu am lay wax ci sa biir wax di tuddu lire su fekke ni tay ji koor dafa da ngeen ko gis ci ci mbalit yi naka ngeen di def wa comme lima la wax rek ñun dañu am suñu kayit régler suñu mbir mu régler euh, fi ma tok yow am contact ak autorité compétente yi fi nek muy en la personne muy gendarmerie ak police suñu foree yenn yi dañuy woo gendarmerie wala police police woo sapeur sapeur ci ndigalu euh, procureur su fekkee liir bu yàqu la ñu def constat ñu suul ko ci benn place fii comme dafa yàqu su fekkee yàquwul nag ñoom ñu yóbbu ko seddal nee nag ñoom ñoo la mën a xam liñ koy def amoon nañ sax dem nañ sax ba benn temps soo gisee ñuy dem def loolu xam nga am na fi kenn xamul benn journaliste comme yéen ñëw fi naan dégg fi dafa am ay trafic d'organe mën bu mu jëm kaw parce ñun formbal la ñu xam ko boo ñu waxee loolu ba ñu xam loolu rek yaa ngi ciy dugal kon bu ko fi indi. voilà donc mooy loolu quoi. mbalit nga xamante ni waaw mbalit comme ni ñu ko waxee rek ñun am na benn borom xam-xam bu ñu wax Jacques Lavoisier ci moom la ñu jàngee ne rien ne se perd tout se récupère et se transforme ba tax nañu jëlee ci xam-xam euh, normalement de soixante quinze à quatre vingt pour cent des déchets day génnaat ci biir dëkk bi parce que bu ñu ko tuuree rek ñun rapidement am na ce qu'on appelle la plateforme wala kaw jàll communément appelé kaw jàll ci ñun mooy foofu la oto mbalit yépp di tuur bu ñu ko fu tuuree ba noppi ñun fa la ñuy nekk for ku for li nga li nga soxla ba pare lépp la ñuy for amul dara lu ñu bàyyi. léegi bu atan attan nga ko ngay gàddu ko soko atun nga xaar même camion yu ko touré won du ñak nga am ci relation mu affrétel lako indil la ba nga toll ak sa place yenn saa aussi nga mu bari doole nga fay mbam wala saret mu indil lako sa place su ko indee ngay def triage nak ce qu'on appelle le triage sur place loolu it indi wat touru olof bi tuddu mba liit azar amul so ne mbaa téye ko sa loxo chamagn baxul nga teg ko ne dal ne liit kon loola day bax donc gis nga azar amul bi ci dess tubab nee la c'est de l'ordure donc c'est comme c'est de l'ordure et c'est durement nga koy amee boo ñëwee sa place nga def triage comme paa bee ngeen gis ma nga ne toog def triage am lee mu indi fii fëleen la ko jëlee ba indi ko fii léegi nag bu defee triage jël plastique technique nii technique lii mu teg am na loo xam ne tant que amoo ci en grosse quantité munoo am xaalis comme ferraille ferraille boo ko dajalul ba mu bëri munoo chaque jour nga jaay ñaari kilo ñetti kilo da koy dajal bañ nee suba la tabaski dajal ko bañ nee suba la gàmm wala màggal nga soog ko jaay yeneen ñi nag moom ngay jaay di jours au jour pour di ko mën a def dépense noonu la système de triage bi def ak système sélectif bi voilà. mais su fekkee da ngaa jaay tey boobu lépp yow yaa ko moom dafa am loo xamante ne da ngeen koy séddoo ak. non amul lu ñu fiy séddoo ñoo ngi liggéey dans le système de chacun pour soi. Dieu pour tous yaa demoon yaa fori li nga fori yaa moom yaa def sa triage li nga trier yaa ko moom boo paree nag am na ñuy jënd am na ñuy jaay mais ñiy jënd ñuy jaay it aussi am na si ñoo xam ne ils ont fait la link ak ay grossistes comme par exemple yow nga am sa industrie feeraay jox ma sa xaalis ma lay jëndal heure boo yebee indee sa camion rek ma yebal ko quantité bi nga yóbbu liggéey sa liggéey loolu moo innové fii ci plastique bi comme ni nga gisee plastique loolu tax plastique bari fi fee sa ginnaaw ne mbuusu perméable rek lay jënd. donc lool liggéeyu jigen ñi la won bu ñëk waye nak xam nga course bo xamne course bu wut xaaliss la wala for dootul am jigen ak goor mhm. kon goor ak jigéen ñëppay fay super perméable ñepp koy bokk ligéy ndo wala léegi ñom suñu dajalé li nga xamanteni moy baliti ba nopi fan lañ koy jaay ji. waaw mooy comme lima la waxon sank amna na ay grossiste bu dé ferraay amna na ay usine ferraay yu nekk ay ay Sébikotane ak fenen su dé përëm bu dé përëm amna ñu nekk ci ay boru badalo ala fenen mhm. su dé plastique aussi usine yi jënd plastique ñokoy jënd muy pour na pas faire la publicité moo mhm. wax la muy ay soja soja place ay pro place ay ama place ay sympa yooyu yëpp seen produit fii lañ koy jëndee. ok euh, ay jigéen ñoomit ñu nekk ci waar wi di dajale ay plastique ñoom Wa wax na la ko point d'achat bi nek sa ginaaw plastique lay jënd motax man la ci ben nga nee la xam nga plastique dafa yomb for mhm. suñu ne plastique nak dafa am ay matière yu bari ya ce qu'on appelle le PEHD moy polyéthylène haute densité ya ce qu'on appelle le PEBD polyéthylène basse densité ya ce qu'on appelle les plastiques fines moy mhm. comme sachet yi jigéen ñi bu ñëk sachet lañ doon for parce que mo gënoon oyof mhm. mais comme mi ngi jar a ah, goor ni duggal nañu seen loxo di farandok jigen ni rek comme yeen souvent da ngeen di wax na rek émancipation de la femme a góor ak jigéen ak ñun ak ñi benn lañu non duñ nekk benn nag. parce que dañuy wut ngeen di wut ku looy am rek foral boppam. voilà ñoom loolu noonu nga xamante ni ñi koy dajale lépp ñoom ñoo ko moom ak ku ci nekk li nga for wax naa la on a le système de chacun pour soi Dieu pour tous. Mhm. du dëgg ñun daal ñoo dem ba ci biir comme sunu grand yi ñee toog paa yi ma lay wax ñoo demoon ba ci biir gis marginalisation parce que am nay temps fii police buy ramasse fii lay seetee su ramassé ay nit biir dakaar yu amatul benn njëriñ fii la leen di tuur si. bu indee ay dof fii la leen di indi donc dañ ñu jàppe woon dans ce système gannaaw yooyu toog xool ne li ñu leen di déranger bëri na ñu dem wuti seen récépissé pour diir que ne ñoom ce sont des récupérateurs ay buujumaan ñu mais du ñu ay bandi ay dañuy liggéey ci mbalit mais du ñu mbalit mhm. loolu moo indi ñu am récépissé bi créé association bi donc association bi juste loolu la fi nekkee le président comme man en tant que tel bu gaa yi téye la personne morale bu amee problème devant la justice yàlla war a taxaw concernant seen liggéey nag mais loolu rek moo fi wàcc association mais dans le système du travail c'est pas encore légalisé système du travail bi ñun ñoo ngi ciy liggéey pour dem à savoir ba mu am le métier de la récupération voilà ba nga xam ne récupérateur day bokk dans la chambre des métiers ou bien au bureau international du travail voilà. Euh, ci jamonoy nawet bon nawet euh, liggéey bi dina metti mais dañuy wax ne mooy gën a neex xam nga lu tax mooy gën a neex yow nawet li nga ci yàqule daa bëri te su ma lay wax ne nawetu daaw bi fii la mu fekk néeg buy senn xam naa ko kon nga xam ne yenn saa nga senn le mu guus euh, nga commencé naan sa doom yi lii de bu mu dugg ci néeg bi yéen nangam da nga koy mujjee sànni sax fekk muy ay dàll yu baax ak yeneen ak yeneen man dàll yu rafet laa sol te fii lañ ko foree mbëbës. waaw ko. Mhm. Eh, dañuy gis ne dañuy lakk mbalit ko lakkee ba noppi loolu nga xamante ni dañ ko lakk naka ngeen koy def waa cest à xam nga souvent loolu daf ñuy marginaliser ñii dañ naan dañuy lakk mbalit bi loolu coow li la nag loolu mooy coow li dañuy lakk mbalit mi ñun dañu bugg mbalit ba nga xam ne waruñu ko lakk ki la ne 80 pour cent des déchets day génnaat kooku xalaatul pour di lakk kooku xalaatul pour di lakk mais yaa deux ba trois systèmes yu am ci mbalit mbalit dina taal boppam sur une fermentation ki s'appelle la fermentation au biogaz <coughs> ou au mbalit yow mii ba matu taal nga mbalit te xamoo ko ndax yeewu nga oto mbalit bi romb la rek ngay changé doom rek sotti sa ànd fekk mu am benn ferñeent mu nekk ci biir di booy borom mënu koo xam parce que benn tesseuse la da koo pressé mu indi ko sotti ko kaw plateforme bi mhm. fii géej moo nekk sa ginnaaw daa woon géej ginnaaw mhm. géej gi upp ko rek affaire boobu commencé dem nit mën na jeex ci mbalit yore wàllu cigarette kii catu cigarette bi wadd ci wala nga fay ko fayal bu baax. Mhm. du dëgg mu mu wadd mbalit mun na tàngal boppam ba taal boppam par aspect wu fermentation boobu ma wax bu ñu la wax ne fermentation à biogaz il faut ñu expliquer. Mhm. mooy fi mu tegu mooy tàng moom ay rayon de soleil yu jàpp ay bombe aérosol yi. Mhm. tel que yu parfum yi ñuy pàccal atomiseurs yi wala yu yoo tox yooyu gis nga dañu ci def genre flamme mhm. pour war na ne dafa war a sori tàngaay su explosé romb phosphore dañuy def contact ñoom ñaar mu jàpp fenn mu tàkk donc loolu it day taal mbalit bi ci def si ñun ñun ñu fiy liggéey am nañ ci ñun ñoo xam dañ leen wooye ay lakitmaan ñoom ñu bala ñuy gën a aay dañu fekk mbalit bu tàkk ba pare ñoom ci la ñuy gën a aay ci for ko parce que lu tax seen oto bi volant la fer moo nekk ci biir volant bi mais munoo ko jot ndax benn caoutchouc moo ko wër caoutchouc boobu nag boo ko bëggee topp di ko leexli di ko dagg mën nga fi def nangam waxtu donc il faut nga taal ko pour mu mun a génn yooyu takk-takk yëpp day am mais au préalable visité nañu ñun ay desart ci àdduna ba xam ne seul moyen de subsistance bi mën a régler situation boobu mooy ñii mu yore mbal mi muy en la personne de ICG am na ay oto mbalitam am ay ndaraanam mais noonu la waroon am ay citerne ce qu'on appelle la protection civile teg ko fi bu amee benn tàkk-tàkk balaa muy sori mu fay ko parce que ñun yenn saa ñuy ñibbi wàcc fi benn tàkk-tàkk dañ koy xaw a écarter rek mais wóoruñu ne mun na jàppale. lu dëgg comme lee nga gis ni sunu ànd la dañ ciy toggee sunu purne la mun nañuy ñibbi mu def ay ferñeent mu ëpp mu jàpp jàppale ci kanamam ñun ñibbi nañu ah ñun personne n'habite ici di def ak ni ñoom nag ñoo fii di kaas li ni mel. waaw mooy li ma la wax xam nga loolu yàgg nañ ko wax mais euh, yàlla moo ñuy àtte parce que mbir yi su ma la nee yàlla moo ñuy àtte man mi la nee maay président association bi maa nekkaale président comité de santé bi ñun dañu am suñu case de santé am suñu lépp te tey boo doon xool feebar yi fi am ñett la rek yi ma sentir te gis leen te yàlla rek laay waxal nag sama bàmmeel laa taxaw feebar bu ñu tuddee les IRA xam nga ko IRA xam nga ko mooy infection respiratoire aiguë parce que xam nga ne képp ku amee problème mu poumon di liggéey ci mbalit. da nga saqat du dëgg mais nag la tuberculose ne se contamine pas par ça de la tuberculose se contamine par le crachat te boor yi gën a humide boor yi gën a sedd fa la tuflit boobu soog a mën a répandir pour jàpp doomu aadama donc biir tataay la nit gën a am feebaru saqat dégg nga ko kuy saqat sax na saqatee ne bu mu jàkkaarloo ak yow ainsi de suite donc la tuberculose se contamine par le crachat fii bu dee nit moo tuberculose tufli ko bi sax ak tàngaay beeg nangam doomu jàngoro bi day deewee ci suuf balaa mu yegg ci kaw kon je dis ñett nit ñi ñokay wax seen waxu bop mais bo amé asthme yi dëkk boru mbëbës mais regarde-moi ça do ci genn nga amé asthme dëkk ci boru saxar ak poussière da nga am problème du dëgg bi ci def moy la malade des mains sales tout à l'heure wax nga ko fi légui ah, man fi ma légui légui jaay katu ngalax bi ñoma lek ngalax té mun na laal ben affaire bu salté donc c'est la malade des mains sales mën nga xey di liggéey ba da nga wacc sa bir daw mais ñing koy gérer it aussi amuñ ci ben problème épidémie tu as entendu le virus Ebola da nga mësu dégg ñu ne da am ko amee Ebola ah te pourtant Ebola c'est dû à à la saleté euh, ay ñanaaw ak ay rabu àll yi naan ci dex te wasine ci dex ga sangoo ci dex ga moo tax nit naa ne ci biir dex ga ndox moomu am le virus Ebola du dëgg donc loolu yëpp nag ñun ñu ngi ñuy marginaliser population bi ñu marginaliser nag moo ñu fekk 68 fii bi fi Mbëbës di nekk kër amu fi àll rek la ku fi may doo jël. ñun ñu nekk fi à nos jours ñoom ñu fekk ñu faute bii ñu amul moyen ñoom pour dëkk Almadi faute boobu moo ñu dal ñu nit ba mënuñoo dem feneen fii la ñu xam ñu toog du liggéey léegi nag boo demee ba mu naqari la ngay état koo mënti doon ñi fi nekkoon ñi fi dëkk te bëgguñu fi mais ñoom nga fi jëlee jox ñu ko ñun mu nekk suñuy kër te ñu bëgg fi waaw boo ñu ko lebelee sax ñu lay fay ndànk-ndànk ba moom ko moo gën nga naan ñii nañ fi jóg ñu nañ fi nangam mboot ci rabu àll yi la bokk du dëgg fii nga mboot fi muy naanee xam nga ko fii gay na di naanee te yow ne ma fa dem kon kay nañ ñu sóoraale nag sóoraale bi nag pour ñu defaloon ko mu mën a jàmm mun a am dama lay joxaale message bi nga yóbbaale ko dañ lay wax ay projet nangam bu ñu defee projet dañuy recruter ci yéen da ngay recruter ci ñun nag am na ñooy dàq te ñu bàyyi ñun ñëppee liggéey pourtant mën nga dàq benn paa fekk moo mun booy bi nga jël wala déet donc boo ñëwee di fi def projet projet boo munti def da nga koy teg suñu loxo ñun ñu gérer ko nga won ñu ko ni ñu koy gérer suñu yëf lay doon ñoo ko war a moom mm-hmm. parce que tout à l'heure da nga gis koo xam ne mu ngi a jaasi di di di dóor pour dag plastique nga gis ay jigen ñu tok fe di raxas nawmi kambel ñewna fi nawmi kambel ñewna fi tok raxas ndok jigen jigéen ñi te bokku na ci nit ñi ñu gën a ci aduna mom nawmi kambel mais ñewna fi ci mbëbës donc loolu ñun ñuy bokk di liggé wa bo mo fekkee ma yara a jaasi di toj ba yàgg nga indil machine bo xam ne li jaasi bi doon def machine bi mën nako kon kay man nga wara remplacer nak mam jam mais do koy indi naan yaa koy gérer sa bop di ci tan nak di ci bayyi so doon bo ñëwoon fekk jigen bo xam ne mi ngi fóot di fóot ci ak loxoom ba yàgg nga indil ko benn machine benn GVAS machine buy fóot waaye waaye moom nga koy jox nag mu noppalu ci fóotam mais doo ko indi naan damay indaale bi nit jàngal ko ni ñuy fóotee machine bi jël la ci yow kon nag ñu gën a yokk coono rek loolu ñoom it war nañ ci bàyyi xel voilà. naka ngeen di dundee ak ñi nga xamante ni dañuy gens ba noppi di dugg fi nga xamante ni mooy rëbës. waa xam nga gens moom gens moom. Mm-hmm. affaire xale la man ma nekk xale na gens naa mm-hmm. waaw man ma nekk xale. dama daan gees di fàq def lu nekk waaw mais tey xalaatuma ko maa ngi samay kër ak samay nangam. lan waa taxoon mbiru dama la wax njëkk a wax ne mbiru xale la boo nekkee xale. Euh, di dem do xam nga du dorog bu rëy loo boobu drogue. Mhm. yàmbaa ji sax comme ni koy waxee du drogue bu rëy drogue yu rëy yi xam ngeen leen. dorog yu dorog yu rëy yi xam ngeen leen ñun ñu xam leen da A à nag da ngay commencé ci opium jéexale ci ay cracks yooyu gars yi ñu ngi ci dëkk bi di ko jël di jël ay héroïne di jël ay coke ñun jëluñu loolu mais su ma nee ñun nag mooy ñun nga laaj rek man mi la wax ne jaar naa ci temps gone tey du ma ko def donc loolu destin wu xale la woon gens ni ngeen koy jàppee gis na gens kat dëgg dafay ragal gens kat dëgg day mujj dof parce que gens ay hallucination ñoo ci am da ngay jékki rek benn ngelaw traversé la nga yaakaar na fas la yow. lepp ko mel na bu mbeur sanni daw ba del ci tok fekk ngelaw la du fas mu ngay xol garab gi ba mu àgg mu nga yakar ne ben gayna buy tëb la nga daw donc gens yeufu goné la dof lo boy yu bëri bref so ñewé ci yàmbaay it mais dañ wax ni deug nak yow fo deuk bo mako waxe mo wax la dealer ba fa nek deuk yëpp am dealer boo ma waxe fo deuk leg mo wax la dealer bi gëna mat wa bu dee nga deuk wa parcel nga deuk même Cambérène am nay dealer yu mat du dëgg bon dama bañ a tudd turu dealer yi rek mais bu ñu paree léegi ma dee la <laughs> dealer yi nekk parcelle ah voilà voilà. dañuy faral di dégg dëkkee ci Malika dañuy kaas ne euh, mbëbës bi bokk na ci li nga xamante ni euh, tax na amuñu sécurité. noo xam nga ñoom wax naa la sànq nee la ñoom ñoo ñu fekk te ñoom ñi lay na ñoom amuñu sécurité ñun sax ñoo leen dimbali sécurité ñun kenn yabuñu dama bëgg nga def benn benn benn lexique dellu tuuti ginnaaw dellu tuuti sa xel ginnaaw. ndax li nga nek journaliste mus nga deg ñu yew rek ñu ne dañu ray nit mbëbës amu fi mbëbës mu ngi fi depuis 68 kenn mosu fi nit yalla bu mu fi am ki mus mos ray kian nit kenn la accidentellement dañ nan wax rek mu def ko ni ben yat ci loos mu de lol tax loolu mun leen ko yek te loolu ay jamono la bobu ñun boy la ñun ni di wax yow fi mbëbës zero crime te bu su yalla sak nga deg mais barki demo Njaay ki ray jabaram fi Aminata Ka mhm. ki ray jabaram fi de ngeen ko mais ñëpp nee waa mbëbës la te pourtant day dugg mbëbës rek di dem mais bokkul ci waa mbëbës amul carte membre du buuñu maan bokkul suñu association mais dégg nga li ko ñëpp waxal du dégg nga li ko ñëpp waxal parce que nit ñi ñoo ñuy marginaliser naan mbëbës soo deewee bu malika rek ñun ne mbëbës la keneen ki booy booy photographe bi ñu ngi ko reyee ci VDN bi mais ñëpp ne mbëbës la mbëbës waxoon naa la ko ne ñun ci mbalit la ñuy liggéey mais duñu mbalit ñun on sa fait respecter je pense que ñi fi nekk ñëpp gis ñi la wër ñi ñëpp gisuma ku ci amul jabar te ñu ci ëpp nag ñaar la ñu am voilà du dëgg mhm. te ñu ngi ay xale yu la gën a rafet ñun <laughs> foqoo suñu bët namuñu dara mhm. voilà donc pour nga xam ne nag loolu nag bokk na ci li naqari nit ñi groupe bii ma doon won kii léegi xëy na fekk woo ko am na ku ci ne waa Mbëbës dañ fi war a jóge parce que biiral nañ suñu sœur yi biiral suñu mère yi du dëgg parce que boo nit ki boo koy wut jéem-jéem jotoo ko da ngay fexe bu la neex pour jaaree ko ba soo bëggee tàggeek sa xaj looy wax da ngay yeewar naan xaj bi day say wut ay yat di ko di ko dóoree xaj bi fekk sayul matu la deful dara xamé na la mais lol ngay wax donc ñoomit fofu lañ tollu bo jëfro lu la neex ngay wax da nga wax ba wax loo lekkul xarjatu bo jël bu mu jëfroo boobu xam naa juddoogoo nee j'ai mangé 132 personnes dont ma mère wala ci yeen euh, jafe-jafe nak euh, ngeen di jankontel fi ba tax bëgg ba ngeen bëgg ci lo xamanteni tay ji euh, ñi nga xamanteni ñoo ngànk mën nañ leen jappalé non jafe-jafe bi ñam bari na surtout bi état état n'a jamais mis la patte dans la farine mosu ñoo jappalé ci dara. benn ministre moo fa mos a ñëw mbëbës lakk mu may ñu 10 millions ak ñetti ordinateur moom la ñuy wax njaay borom kuddu yi mais ñun duñ ko wax awa njaay awa xaalis lañ koy wax ñun ñun duñ ko wax borom kuddu yi day ñun man boo ma ko mënee jàllale message bi ne la awa njaay na ñëw nag ñun dañ ko namm soxla nañ dañ ko namm namm nañ loxoom kooku moo ñu mos a yëkkati xaalisam jox ñu te nekkul loon sax ministre bu yore mbalit c'était dans le cadre de vie et du genre mu dem dans la journée de la femme mu laaj ndax ay jigéen ñi ngi fi ñu ne ko waaw mu dëpp ñëw jaar fi fekk ñu am lakk boobu ñun naka la ñu fi woo le ministre de tutelle mu ñëw ñu ne comme dañoo lakkale ay nit yu dee boobu ay dee moo am bu awa Ndiaye y'avait pas de mort waaw fii ay dee bon nit ñu bëri wax nañu six quatre nangam non non deux ñoo dee benn bi gis nañ ko jaale ji ko ñun def ci liñ mën euh, beneen bi. ba gis naa néew bi mu lakk ba nekk këriñ damm ci digg bi xam naa xale la mais mosumaa gis ku ne boobu moo ko moom donc ñàkkul ci phénomène u taalibe yi la sëriñ yi nëbb seen bopp mm-hmm. benn bi porté disparu la muy Binta Sadio ba tey gisuma ko ne gis na ko waaw donc ñun loolu ñett yooyu lañ mën a considéré am na ñu fi wax nag gis naa ko boot doom gis naa ñu kolante dee ku lu ne lu ne la ñuy wax man xuloo naa ak ay nit yu wax na gis na ko kolante dee man la ndax yaa ko gis foo gis naa nga nga xëy merema c'est-à-dire il faut qu'on se dise la vérité mbëbës bii ñi fi nekk dañ fi nekk di daan seen doole mais du ñu ay dof ay nit njaay lañu yow nga jóge fële ñëw d'ailleurs sax ñi fi nekk di di kaas ci mbëbës amuñu fi tool amuñu fi wàll amuñu fi dara mais un grosso de message bi ma la jox moo gënoon ñoom bëgguñu fi mbëbës ñun dañ ko fee bëgg ñoom ñu fee dëkk waaw waaw ne leen état fay seeni kër jox ñu kër yi ñun wala voilà. Mhm. Euh, yéen ñi nga xam ne yéen a da ngeen a yor lu ndax yéen a ngi saytu ñi nga xam ne si ñooy seen yi ñëw di fi nekk. te mhm. léeg nga gis koo xam ne si tey daf ñu ñëw xëy na di di di di gens wala ñu naan sangara. Mhm. génn ci bitti def agression biir Mbobas. Mhm. xam ñi nga ne si ñooy xëy si fii parce que gis nañ fi ay mbaar yoo xam ne si du ñàkk di def ay ñaawteef ci bitti di ñëwaat biir comme ni nga koy waxee xam nga ñaawteef moom ñaawteef la euh, nit nag sàcc bu fekkoon ne bu la wanee ginnaaw ñu bind ci ginnaawam sàccee kon na nga xam bi ngay jaar mais ñun nit mën na ñëw si ñun ñu xamoon ko depuis njalbeen su ñëwee dañ koy dalal ci ko comme niñ ko xamee woon ndax def na ca dëkk ba nag ba pare soog a ñëw loolu moom binduñu ko ci jëwam binduñu ko fenn ñun mënaguñ koo xam mais ñun ci fi ñu toll la ñuy wax ñun xam nga ñun fu ñu toll mooy lan am nañu ay gars am seen doole yu fi nekk yoo xam ne boo ñu bëggee sonal yow indi fa yëfu agression balaay jant bi so bu ñu leen def ñoo ñooñu ñooy jóg ak seeni i pexe bopp sifaay la ba nga abale kenn ngi nii taxaw ci borom doole yi la bokk jël ko nga gis ko kii gisoo ko usine doole laa koy wooyee boo ñu bëggee jaaxal léegi-léegi ñu woo ko am na yeneen moroomam fii kenn yabuñu fi ñun kenn yabuñu du kenn dama la wax ne mun nga fee dugg ba kaw jàll xam nga posé ngeen ma question boobu li tax laaju leen ñu ay indicateur wala yeneen ñu dugg suñu biir ñun des fois dañuy yenn ndoog alkaati fii waaw ah, ah, waaw bien sûr est que lan moo ñu wër ne vous pouvez être des journalistes en même temps alkaati di wax quand même euh, quand su ngeen sóoree lii rek sóoraal leen lee yéen ay journaliste ngeen yéen a ko wax woon ngeen ma carte presse mais mën ngeen nekk ay alkaati it aussi voilà du dëgg donc li ñu ñun li ñuy xam rek loolu lañ leen di wax te it du ñàkk a ah, euh, comme ni ma lay waxee dox boo gis kër la jógee du ñàkk ci ñun am ñuy tox boon waaye bu dee da ngay tox boon doo soxla jaaykatu boon bi koñ yëpp am jaaykatu boon laa la wax mais jaagalu bon bu toog di jaay bon kii jënd bon di jënd bon police di wut ku mu jàpp ñoom ñett ñoo am seen link bu ñuy liggéey ñoom ñett ñoo am seen liggéey bon agression bi comme ni ko koy waxee bëri na li ñu fi wax mais bu ñu la woonoon tey nee la kii ci agresseurs yi la bokk da ngay doon doon xale boo xam ne nekk démb la judd 2000 2000 boo mootul lay judd hmm? waaw léegi xale bu judd 2000 mën na fi nekk agresseur bu jaaxal nit ñi day nekk suñuy doom ñun kooku du dugg fii mbëbës ca buntu ba la toog nekk booy bu mën a daw des fois pour ma jàpp ko man problème la cest bu lo këfee sa yef ci mbartal bi jage mbëbës du dugg mbëbës bu fi dugg ñun ñukoy japp mbartal bu jage mbëbës jage kër yi lay wacce su ko defé nak nit ñi ne mbëbës la dugg buntu ba amna ay mbartal yu dul jeex amna na gauche ak droite boy bu agressé ci buntu ba bo ne ceex mbartalu gauche wala droite ki nga agressé da nan bu ko top dem mbëbës la ca bànn yalla fekk moom su duggee mbëbës ñun ñu yew ko su duggee mbëbës ñu japp ko jox la ko kon gisal ne kep ku këfati sa portable ci buntu mbëbës suy daw top ko waaw dugal amu fi bu fi amoon doo toog ni ci jàmm di ma laaj loola neex euh, man euh, doon naa ñëw di dem parce que wax naa la ne jaar naa ci benn système boo xam ne système xale la mm-hmm. mais bi ma ñëwaatee toog 2005 ba tey buusa jouru tabaski sax dinaa fi ñëw cinq ba tey mais comme kee ma la wax ñu ma lay bëgg booleel ñoom 68 à nos jours ñu benn yoon am na si ñoo xam ne armée lañ dem seen diire legal deux ans ñu dellu si merci li ma li ma leen war a wax bëri na de d'abord di leen fàttali ne ñun nag ñoom ñoo nekkoon démb tey soog a ñëw di leen fàttali ne ñun bi ñu fi nekkee bi ñu ñëwee fi àll bi ne gaañ kenn ñewu fi ñun ñoo ci xus jàll kenn gungewuñu di leen fàttali ne ñun amoon nañu poulailler fii bu mag dëkk bi yëpp marginalisme ba bés dem di wax ne yaa ce qu'on appelle benn feebar boo xam ne feebaru ginaar la. ñu ne comme dafa am injection képp ku yarati ginaar ci booru Malika ak environ du baax ñu ne nappe phréatique d'eau bi dafa atteindre kon ku fi yar ginaar du baax mairie bi di dox mairie bi di dox ba zone bi yëpp amul école ñu ñëw wax ñun suñu association ñu jël sunu poulailler octroyé leen ko pour ñu def ko école d'abord bu fekkee da nga wax ne ndox meek suuf si dañoo yàqu ba baaxul ci ginaar kon kay boo ko defal ay élèves du baax ci ay élèves wala li mën a rey ginaar kay ci ci mbon mën na rey ay élèves mais bi ñu waxtaan ak ñun ñu déggoo ñu jël suñu poulailler jox leen ko en deux tranches benn bi ñu war ñu si defaral suñu dispensaire parce que ci pyramide médicale bi case de santé la ñu amoon léegi ñu war a ériger wu en poste de santé euh, li ñu waxoon ñu ngi koy def mais population bi fay ñu naar ba xoromam xam nga ko la def loolu jël lu toll quatre mille deux cent mètres carrés jox la ko nga def ko école au finis mu jëlaat dispensaire am jox la ko li nga ko waroon fay fee mun la defal la ma ko dispensaire mais kooku boo ko gërëmul wala too ko xalab du donc population bi encore une fois nañ ñu may jàmm xam ne du ñun du ñun état moo manqué la bu état manqué la nag day feeñandoo ci ñëpp su fekkee dañoo ragal état ñu ñeme ñu ah ñun day dafa ñun charte moo ñu tënk rek moo tax ñu toog ci àll bi rek jàpp suñu njàmbur ñun ñemewuñu lool te ñu bëri dañoo yaakaar ñun ñooy gaynde yi te ñun ñemewuñu lool de ñun boo ñu tooñee rek bu ñu arrière ba sës ci miir la ñuy dellu si pour contre attaqué mais daw rek moo ñu wàcc ci àll bi daw rek noonu na ko population bi xam daw ñun dañ dem sax ba nitu dëkk bi dañ leen ragal man dama yaakaar ñoon ñooy militaires yi ñun ñuy civil yi man ma génn fi mu toll nii j'ai peur de toi moo tax mënoo maa charmer quoi booy yi nii ñoom laa gën a ragal ne bu may wéete nag ñoom mun nañoo yóbbu loo xam ne ne maa ko wax fekk waxuma ko donc loolu it difficulté la man j'ai peur de vous même ndax am na ñuy taxaw fi sànni seen drone ñu nekk fii marginalisé ñu jël seen i affaire wax lu nee ñu waxal ñu ko defal ñu ko te fekk ñun araam nekkul suñuy xol nekkul suñuy jëmm enfin ay ragal lañu voilà merci.